ay góorgóorlu rek di wax nit ñi ni ko bëggee man suma toogee nii laa koy defee waaw man ngaa wax ne ni ma fi gis léegi mu nekk fi d'accord ma ci ndax nii bu ñu ko defee nii na la la man nii laa ko buggee yaag moom yaag moom man tam ma wax loolu nga rafetal ma rafetal suñ demee ba ba bis ba jot ba yàlla fal jaarale fal gi ci doomu aadama yi xam nga doomu aadama yi ñooy fal waaye ci kàttanal yàlla doomu aadama loo man yow da man dara yow loo def rek yàlla la yónni yow mun la dara de yow bi ngay ñëw isiwaale dara booy dem doo yóbbu dara biir bi nga fi nekkee loo am li nga fan ne yaa ko moom sax moomu la ko bu biir bi métti woon léegi léegi wala bopp bi rek ñu yóbbu ci lopitaan ba tëral du too xam foo nekk rek lépp loo moomoon fàtte nga ko bang bu bëggatula ko la ko tudd soxna su rafet sa bëggatula koo gis lal bu nooy ba a caa tëdd lal bu xat ci ngay tëdd hmm? lépp loo doon bànneexoo faaleetula ko léegi kon yow amoo dara loolu moo tax ma ne la yàllaay ko ci nit ñi léegi nag bu yàlla falee ba pare man dama bëggoon a développe Gambia yow danga nga bëggoon a développe Gambia Babacar dafa bëggoon a développe Gambia Samba dafa bëggoon a développe Gambia waaye léegi yàlla def na fal nañ sàmba kon ñun lu tax duñ dem ànd ak sàmba liggéey comme lii lañ bëggoon kon ko lii de bu am gis-gis nii lay gisee ñëpp ñëw nekk ci sa gannaaw même bu fekkee falu la leen ay ministre sax waaye kàddu gu rafet ak xalaat bu rafet war nañ koo am di ko génne jëmee ko ci yow. su ko defee développement mën a am waaye déedéet dañuy gorante tànk rek ku fi toog rek dañoo bëgg mu féel ndax bu ëllëgee ñun ñu mën a am dara loolu du opposé jullit du opposé nit ku gëm yàlla ku fi toog rek na féel bu féelee ndax moom moo féel Gambie moo féel te yow doomi Gambie nga te yaa ngi am mbokk biir Gambie kon lu tax nga bëgg Gambie féel kon il faut ñu fàttali nit ñi démb nañ doon opposé démb na mag ñi doon jiitee yónnentu yi ak nit ñu baax yi ñi jéem koy roy Ibrahima ne baay baay de yow li ngay jaamu de bëriwul njëriñ de waaye baay ji daf ko ne sori ma de boo ma moytuwul rek de ma gaañ la génnal sama kër Ibrahima ne ko baay mu ne ah mu ne ko man jàmm man sama kuddi gi jàmm la ràcc waaw man ñëw ma pour xoloog yow ñëw ma pour oppose la man dama ñëw rek pour oola ci dëgg comme nag yow gisee wala ko noonu léegi nañ ko bàyyi noonu man jàmm rek moo ma tax a jóg waaw ba mu demee ba xam ne lii du sotti mu ne ko jël toogal man maa ngi dem ci sama sama borom kon yow man ngaa wax nit ñi li nga bëgg a def waaw war man ngaa wax nit ñi li nga bëgg a def waaye boo paree ci li nga bëgg a def wax gi ba pare yàlla def na ki ki yàlla bëgg tànn tànn na ko ba pare lañ fa gis ñun mooy yow nga ñëw rek góorgóorlu liggéey ànd ak moom dimbalanteel moom njiit yi ñoom ci seen bopp su fekkee imaam yi ñoo déggoowut fan la maamoom yi di déggooyee su fekkee ñi jiite office bi ñoo déggoowut liggéeykat yi ni ñu déggooyee su fekkee leader yi ñoomu neen ñooy sànniwante xeer taw wax ja xëy na mën naa nekk waxi politik rekk waaye léeg-léeg mu ëpp su boobaa ndax ñi ci seen gannaaw danañ déggoo dañuy dem yàgg am na ñoo xam ne ñoom seen xel eggut ci xam ne lii waxi politique la dañ koy def dëgg da nga gis sax famille boo xam ne ñoomu neen jubóo dinañ léegi jamono bii te duwul lu may làmbatu man maa ci teg suma bët famille boo xam ne jëkkër ak jabar wala doom yaa euh, baay ya way jur ya wala mag ya rakk ya wala sax ca biir sax dem nañ ba politique bi dugg na fa da nga xam ne kii fii la far kee fee la far ñi ngi am problème ñoomu neen loolu lu ko jar ci lii da yoo xam ne bu ëllëgee kii oppose nii tey di wax lu ko neex bu ëllëgee mooy ñëw fal ci fal ànd kële mu def ko te yéen gis ngeen ko fi hmm? man dama foog ne nit ñi dañ doon eewa rek politique politiciens yi seen wax yi war warta tàqale kenn nañ leen wax dëgg rek te ñun déglu leen bu sànni carte jotee ñu seen nuñ leen defal loolu moo dëpp ak diina waaye warta waruñoo fexe ba mu yàqal ñi suñ diina yàqal ñi suñ jaamu yàlla wala mu yàqal ñi suñu mbokk yàlla nga ko dogee ca turam wa dafa wax ne ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la bul fexe ba dog bokk gi ndax ne maag diw ñoo bokk waaye maag moom duñ laalante parce que mu ngi ci diw sàngam yow diw mu ñàkk fayda moom la topp rek di lacc-lacc diw du ko jëriñ dara na ñëw ci diw waaye waaye du noonu démocratie lañ wax di man kay maay sa papa waaye man fii laa nekk yaay sama doom demal fi nga fi nga bëgg a nekk nga nekk fa man maay sa jëkkër fii laa nekk yaay sama jabar foo bëgg a dem dem fa waaw su ma la ooyee nag kaay fii nga bañ fa la nga nekk nga dem yow su ma la oowoon ba nga ñëw itam suñ demee ba sànni karta ndax danañ nangu luwaa bi dafa nangu jëkkër ak jabar xànd dem sànni karta nanguwut ko de nanguwut bàyyi ak doom dem sànni karta kon bu ma duggee du ku ma neex lay sànnil kon dëgg-dëgg ku am xel famille yi war nañoo bàyyi seen xel ci coowaleeg jàppal bàyyi ak wuute bi nga xam ne mu ngee xew ci politiciens yi nga xam ne tey ku ci mel ni dafa mere nit ki bu subaa ñu àndal foog naa ne Gambie moom léegi loolu neex ma leen a jàngal ndax ñañ falangoon génne leen ne yéen génn leen liggéeyu leen wala li ngeen di amee dëkk bi baaxut tey ñoom la ñuy gëppalante di leen giiroo dégg ngeen ma leen foofu ñañ falangoon ne leen yéen baaxu leen yéen li ngeen fi nekkee baaxul yàq la ma ne ñoom la ñuy gëppalante di leen giiroo di leen tey ci seen ron seet ko rek bu fekkee li ma wax du noonu waaw léegi yow nga am xel yow yow nga bëgg a nekk di isi problème ci biir jumaa ji wala nga isi problème ci office bi ndax lan diw dafa farfale man ma far kon yow amuloo xel jëlal sa kaat bi rek bu la opposition bu la bu la bu la yi jaral jaral loolu bu sànni carte jotee nga sànni ku fi yàlla teg ñu ànd ñu ñëpp dimbale la pour Gambie dem ci kanam lii mooy na lii dañu doon ànday démb moo tax nga gis bi yàlla yónnee yonti yàlla nuuhu bi Ibrahima ñëwee dafa dëggal nuuhu la nuuhu doon wax rek moom la Ibrahima ñëw di wax bi yonti yàlla Ibrahima demee yonti yàlla Moussa ñëw yonti yàlla Moussa bi ñëwee la Ibrahima doon wax rek la doon wax. nga seet ne Ibrahima Moussa bi mu demee yonti yàlla Insa ñëw yonti yàlla Insa bi mu ñëwee la Moussa doon wax rek la doon wax yonti yàlla Insa bi mu demee yonti yàlla Muhammadu ñëw ba mu ñëwee la yonti yàlla Insa doon wax rek la doon wax ñoom taw tawhid rek. xool nañu ci nite ci jàmmoo ci développement waaw lu tax ñu ñun mën a ànd yow nga ne ñun ay leader leen waaye dañ dem ay noon rek di dóorante ay tànk bu teyee saaga wante bu subaa ñi ànd loolu dafa ruslu dafa ruslu kon li xew mooy euh, jàngale ci lislaam du du du nangu du nangu mukk jàngale ci lislaam ma ne programme bi du nangu mukk su ngeen jógee campagne ñëw imaam yi ñaanal leen ngeen commencé su ngeen amee mitin ne imaam kaay ñaan wala ki ci jàngu bi kaay ñaan ñi ñaanal leen su ngeen wiinee oo oh, imaam yi ne kaay ngeen defal ñu ñaan bu seen jabar yi amee doom ngeen jox ko imaam ñi ngénte ko ku ci faatu dégg nga yéene wuñ ko ci kenn ñu ne imaam yi jël leen ngeen toppatoo jullee bu pare bu ñu war a wax ci lii développe dëkk bi ngeen ni imaam yi noppi leen pour lan loolu xel nanguwul ko imaam bu ci bëggul wax mën ngaa bañ a wax waaye ku ci bëgg wax mën nga cee wax waaye seetal looy wax nag te li wax nga wax ko ngir jëmmi yàlla ji rek pour doomi Gambie yi nekk ci seen biiru ndey sax mën a jëriñu ci mbir mi kon borom bi noonu nañu ci alquran wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi l fi l ardi inna la yuhibu l mufsidin borom bi nee na sàkkul utal lépp lu la yàlla jox wut ci yàlla waaye bul ci fàtte àddina seelul wax ji lu la yàlla jox kàttan la wala xam-xam la wala alal la mu ne ut ci yàlla waaye bul ci fàtte àddina kon kay ñiy oote ne fal leen ñi nii mën nañ ko jaxasee mbiram diina ji suñ ko jaxasee mu mën a ànd déggante kilifa aada ak kilifa diine buñ déggooyee développement dafay yomb waaye buñ leen tàqalee hmm? te mënuñoo tàqale ko ku ci daw sa morom ngay seeti kilifa diine gi ndox mi muy naan lopitaan bi muy fajoo te mënta ñàkkaa faju courant bi muy taxal dégg njàngi doomam kilifa diine gi kan moo ko amel du government bi boobu noonu ñaan soxla ci réew mi ak yar xale yi ngénteel leen doom yi dëj yi lu nekk ñoom ñoo ko yoore kon ñaar lañ ñoo xam ne boo leen bëggee tàqale dafa mel ni da ngay delloo gannaaw dëkk bi waaye doo ko développe kon yàlla nee na wa ahsin kama ahsana allahu ilayka na nga rafetal comme ni yàlla rafetalee jëmee ci yow yàlla rafetal na jëmee ci yow de bim la defee nga nekk nit bim la defee nga nekk nit mu jox la xel loolu de taar bu ko gën a rafet man gisuma ko waaw yàlla rafetal na jëmee ci yow de léegi nag dafa des ci yow nga nite nga delloo yàlla njukkal ci gëm ko ci óolu ko nga delloo yàlla njukkal ci jaami yàlla yii nga fonk leen nga dimbale leen nga gis jëmmi yàlla ji ci ñoom doo xeeb kenn su boobaa nañ delluwaat ci aaya borom bi nee na inna aradna al ala alsamawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yacmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insaanu innahu kaana saluman jahula c'est 22 suratul ahzab borom bi tabaraka wa taala nee na kóllëre gi dama koo jël kóllëre mooy lan mooy kan moo may ameel adduna kan moo may defaral adduna adduna bii ma liggéey kan moo ma koy defaral nga xam ne da boole gëm yàlla ne man gëm ma ne man yàlla man maay yàlla nga gëm samay ndaw ba pare nga jox respect doomu yi xool leen bëti borom bi leen bind loolu mooy kóllëre gi kan moo ma fi mën a utuwaay defaral ma adduna yàlla ne ma jël kóllëre gi jox ko asamaan asamaan ne mukk man dama ko àttanam loolu loolu dafa diis dénkaane dafa diis yàlla ne ma jël ko jox ko suuf suuf ne mukk dénkaane boobu dafa diis defar suuf defar kaw suuf defar mondo bi defar doomu aadama yi ñi nite man loolu mënuma ko de wéetal yàlla jaamu yàlla ah xóoluwuma koo jël yàlla ne ma jël ko jox ko xeer yi xeer yi ne mukk maawanti ni ñu ne ñun xattanuñ ko de yàlla mu ne doomu aadama jël ko xenu ko lu asamaan xattanut suuf xattanut ko xeer yi xattanuñ ko yow mu ndaw mi taxaw ci kaw suuf nga ne da nga koy enu yow ma tax yàlla mu ne innahu kaana saluuman jahuula ak a mën a tooñ ak a réer moom doomu aadama waaye mën a tooñam googu ak réeram gi yépp su de su demoon ba jël xilaafa gi delloo ko yàlla rek génn ci tooñ nga ak réer ga su réeroon ci yàlla ba feeñatut su réeroo réeram gi yépp mooy mu gis boppam kon ku réer la waaye bu réeroon bu réeroon ci biir yàlla rek dégg nga su boobaa dana delloo mbir yi yàlla jàpp ne moom mënu koo enu mu jàpp ne moom mënu koo enu waaye mu jël mbir mi delloo ko yàlla gis la yàlla bi mu waxee ne julli leen ci yonent bi yonent yàlla maama dafa jëlaat julli gi delloowaat ko ci yàlla allahuma salli xam nga doomu aadama lañu wax ne mooy julli ci yonent bi waaye dañ ne allahuma yow buur bi salli jullil yow fan nga jullee kon yow julliwu la yow ala nabi sa xamal na ne yow amuloo julliw ci yonent yàlla moo mën nga ne allahuma salli yow yàlla julli do julli yow kon mu ngi lay wan na la yow wan nga ne yow kon alquran dégg nga dafay jàngale dëgg dëgg dëgg nit ki kóllëre gi ko yàlla jox mu fonk boromam mu fonk moromam soo fonkee sa morom fonk doomu aadama soo ne jox leen ma buñ la joxee da nga delluwaat mbiri ci ko ci yi loolu mooy kóllëre gi waaye doomu aadama xenu ko rek di ko paca-pacahe, di jàpp ne man la man maay ponkal mi man sama yaay dafa liggéey man doomi dëkk bi nanggam, nangam nangam ñun ñi ngi juddoo dëkk sàngam ñun dëkk sàngam lañ juddoo xanaa xamu la man suma sa fi la juddoo lu nekk yooyu yëpp daraa ci amul solo nem doomi Gambie nga rek trayel nit ñi liñ soxla ci yow mooy jikko bu rafet bi so amee xam-xam nga dimbale Gambia so amee alal nga dimbale Gambia dégg nga nga ubbi ay compagnie nit ñi entreprise yi nit ñi liggéey waaye duur man doomi dëkk bi laa sama maam fi la juddoo sama bàyyi ñu ngi ko suul place sàngam loolu laa yan fax shay'a loolu du ñu jëriñ dara ñun dañ ko soxla ñi fi am ay ay ay ay kaña yoo xam ne yàq rek lañ mën te gàmbi lañ juddoo waaw ah, yàq rek la ñuy def te gàmbi lañ juddoo ku leen mën a génne ya. kon lu loolu ay ca leen ñi delluwaat ci njàngaleem mag ñi laamin war nañu ne suñ taayam jeex na lañ koy continuer ak pour isil leen démbu ñu mën a fàttaliku démb ñu mën a ah, teg suñ tànk ci siratul mustaqima ñu bañ a yàq programme bi yàlla nañu ci yàlla may ndam su yàlla tànnee yàlla nañ nangu dogale yàlla yàlla nañ ànd ak su boobaa ki fi toog ñu dimbale ko gambia dem ci kanam gambia mel ni yeneen yi dellu gannaaw gi jeex tàkk yi am tanki kanam di daw gambia di daw waxuma waaxu de muy daw mal yàlla mal na loolu yàlla nañu ko yàlla defal wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain